suñu parti bii nga xamante ni mu ngi tudd force nouvelle patriotique dañoo woote congrès foofu ca Thiès dañoo woote seen congrès foofu sa Thiès en sa séance du 16 à 16 novembre 2019 ñu jël nag ay mesures yu am solo mesures yi ci ëpp solo moo di taxawalaat yeesalaat comme niñ ko waxee yeesalaat kuréelu parti bi président Mbaye qui ci vision def confiance taxawal une jeune équipe ni len dañu bëgg ngeen porter ambition de développement parti ñu jël suñu jëm ji jiital ko ci kanamu parti andal ko ay responsable yi nga xamanteni ñom ñoy ñi jappalé ci liggéey bi ci bureau politique bi mais également ci fédération départementaux yi ak fédération régionaux yi ñu jox ñu nag benn feuille de ni ñu dañoo bëgg ngeen taxawal parti bi ci gox yépp ci Sénégal ni ñu dañoo bëgg ngeen taxawal parti bi ba nga xamante ni élection yii ak yeneen yuy dellu siwaat parti bi dina ci mën a participer ñu nit nag ñu def ko sunu ambition ñu ni liggéey boobu nga xamante ni kilifa yi teg nañ ko ñu ngi ci ànd ak li nga xamante ni moom mooy

ñun dañ ni réclamé wuñu ci patriotisme boobu ñun patriotisme bi ñu réclamé wu mooy patriotisme de développement patriotisme bi nga xamante ni moom mooy jël réew mi man koo taxawal man koo defal man koo lépp loo xamante ni euh, lu ñuy doxal réew mi ak loo xamante ni ci préoccupation sénégalais yi la moom ñun ci la ñuy taxaw ñun kon ci patriotisme boobu la ñu nekk. ñu koy leeral pour que ñëpp xam ko ñun. mairie Mbour bii ñu jëm samp nañ suñu ndënd ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar gi nga xamante ni bëgg nañ mu génne candidat samp nañ suñu ndënd pour doon ci candidat à la candidature pour que ñun biir Benno Bokk Yaakaar ñu nit ñu am maire boo xamante ni moom mooy jiite Mbour porteur de développement porteur des ambitions porteur de développement de Mbour pour que Mbour passe fii nga xamante